taxaw na. Siteu bu waa ciy wax bis boobu. li ma ciy wax. li ma ciy wax dina bëri du bëri mooy maanaam maa ngi waaj ànd ak samay mbokk di jëm si bis sama diggante ak si bu Ngor le 19 mai. waaw di ñaan suñu borom mi dara teewul rek suturaal may ma ci kawam waaw mais li ma war rek ci kawam incha allahu rabi. mais yéen ñaari xale yi. fii la tolloo. mais kan moo ci sàkk woon bëre ak morom kan moo ci gënoon bëgg a bëre waaw Siteu bu Ngor man bëggoon naa bëreeg moom loolu yàgg na mais man ne daguma licence pour benn mbër bëggoon naa bëreeg moom loolu yàgg léegi loolu depuis ma am 3 combats xaw ma 4 mu ne bëreewul ak man mu dem ba si biir bëgg a bëreeg man man ma tourné bëreeg moom parce que parce que man sama diggante man xooloon naa lu jéggi Siteu bu Ngor waaw. combat boobu ndax xarej na sax arène nationale mobilisation ndax lamb jooju xaj na arène nationale waaw xaj na arène ñu ngi si bëgg su kattanu yàlla ak mbaaxam lycée fermé lañ ci bëgg suñuy supporter ñëpp wuy suñu suñuy am di jàmm suñuy nit waaw te ku te ku xam Diop de xam ne Diop de Diop de di waat ñëpp rek képp koo xam yaay supporter supporter borom soow mi rek nga wàcc baax a baax a baax xam ñu jëm ci ñu bi ba pare bu ñu jógee signature bi le huit xam nga yàlla suñu borom yóbbu ñu signature bi ak jàmm indi ak jàmm ñu waat laamu ji bu baax a baax a baax ma ñu suñu ndam di woo ñëpp nag kulukum bàyyi ñu kenn noonu Innova